الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من تماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همازات الشياطين أعوذ بك رب أن أحضرني الحمد لله الذي بجلاله تم صالحات الحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساد لساني نور جناني صافي أماني وزيد برائي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يحقق قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki جولي دي mbokki طالبين yi mbokki dëkkandoo yi ak ak fu waay mën a nekk ci àddina si rek dinu seetaan noo ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, di wax ne noo ngi siyaare bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy waa rési dégg nga xam ne tey bu ngeen nu déggee rek xam ne ñoom la muy ji Seen dégg ak ki nga xam ne moom mooy Modou Aïssa ak euh, Fatou Satina Njoon ak mm, mm, Modou Ndiaye dégg nga ñoom ñëpp noo ngi leen di siyaar di leen ñaanal gudd fan ak wér waaye di wax ne noo ngi siyaar bu baax sunu xalifa général dégg nga sunu yaakaar te ëllëg mu sëñ Muntaxa Mbàkke Basiir yàlla na fi yàgg te wér dégg nga ak kan ki nga xam ne ki moom mooy sëñ am na sëñ Moodu Mbend Fall noo koy siyaare bu baax a baax di siyaare sëñ Saalu Ture mu sëñ Saalu Mbàkke moom Xaadim Rasuul noonu la ñu siyaare sëñ Moussa Fall mu sëñ Mbàkke Fall mu sëñ Amdi Xadi Fall di ko siyaare sëñ Cheikh Ngunda Fall mu Cheikh Saliou Fall di siyaara di maam ki nga xam ne moom mooy sëñ euh, Cheikh Ndigal Fall mu Cheikh Fall Baye góor maam Cheikh Ibra Fall noonu la ñu siyaara di maam sëñ Mbacke Fall mu sëñ Modou Moussa Fall mu maam Cheikh Ibra Fall Lamp dégg nga noonu la ñu siyaare waa Tiwaawoon sëñ mbay Mbaye si Mansour di ko tiwaa siyaare dégg maam waa kër Cheikh Abdou ay dara waaye noonu la ñu siyaare waa kër ma Allaaji dégg nga mu neen njëgeen di ko siyaare waa sal sal yu dabbaax yu ak cekkeen dégg nga maam feec dégg nga dégg nga ñëpp bàyyiwul benn këru diine ñoo ngi ñaan yàlla na yàlla indi jàmm ak salaam dana ngi dellusiwaat tey nag ak seen xarit seen soppe Cheikh Ousseynou si Naar borom Touba ci émission bi nga xam ne moom la ñu tuddee jàmm du doy dégg nga di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi ak si àddina si yëpp dégg si ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Xaadimu Rasul dégg nga ah, fii ci Prestige TSTV dégg nga tey jii nag ñoo ngi ànd ak su eh, suñu njaboot rek comme ni ñu ko daan waxee dégg nga maam ah, mooy Aline Mbaye dégg maam Alioune Mbaye bu ñu ko waxee xel yi day dem sëñ Saliou Touré Alioune bay borom daara ja alxuraan Alioune Mbaye dégg nga xam ne kan mooy wasilaam mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dégg maam nga xam ne dégg maam bisam at mu ne da koy taxawal dégg di ko màggal siñ Alioune bay nag di borom xam-xam tey looy mu daje moom la ñuy dajeel incha allah dalal ko waaye di dalal tamit ki nga xam ne moom mooy dégg nga alaaj cuun wax dëgg yàlla léegi mu agsi soobee yàlla waaye tey jii kan la ñuy waxtaane jàmbaar ju mag jàmbaar joo xam ji koo xam ne ñëpp ko bëgg mu bëgg ñëpp moom moo wax ne ah bisimilah jàmm waaye waaye man rafet naa njort lool saa jëmm ji waay ñu ne ko waa lal na mu ne leen man dégg maam ah damaa damaa damaa damaa damaa bëgg ñëpp ba pare dégg ma damaa yéene ñëpp jàmm ba pare amal ñëpp njëriñ kookoy kan mooy Alaaji Fàllu Mbàkke ilimaan si si di gadee Alaaji Tuubaa moom la ñuy waxtaana tey dégg nga xam naa ne temps bi dafa xaw day xaw a gàtt bëgg nañ rek dañ jox sëñ Alioune Mbaye dégg mu daal ci dugg nuyoo ba pare dugg ci sëñ Fàllu mm-hmm. dégg nga dégg nga doog a continuer bala Alaaji ak bisimilah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 wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir waxal bi arshida mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar yéen ñuy seetaan jaarale ci nuyoo bi sunu kilifa Cheikh Ousseynou Sunaari borom Touba mu jaar fu mu jaar ci nuyoo rek ñu nuyu ko xam naa di tàmbalee bayit woow rek yaa faadilan fadluhul xalaaqu yaa man bihi faara xaniil imlaaqu mu tudd léegi Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu ñaanal ko yalla suñu borom yagal ko fi lol te di ndokel cheikh mohamadul muntaxa lu bare bare bare ci bis bi nga xamanteni bi mom lañu genn muy bis bo xamanteni bi daf ci doon ma sha allah rabbi taala daara joj nga xamni moy complexe cheikh ahmadul khadim baye seen muy liggey bo xamni serigne touba tuubaa ñett la waxoon ni mom la déssé ci kaw suuf ñetti yooyu nag ba ca njëkkoon mooy aj màkka Cheikh Mamadou Fadal mi ñuy waxtaane defaloon ko ko ñaareel ba mooy jumaay Tuubaa Cheikh Amadou Moustapha Sëriñ falu jiite jumaa jooju ba tey jii mu naaroon jàngukaay boo xam ne dafa waxoon ni lil Moustapha lii banal madu banal xuduusu madrasatan biha yazaalul aza wal jëhru wal kabadu mm-hmm. xam ne loolu Sëriñ Abdou Lahad moo ko tàmbali woon Serigne Saliou liggéey ci léegi bi am solo ba tey jii Cheikh mun Mountakha fukki fan ak juróom ci weeru rajab mu ñëw ubbi ko yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ko defee nag macha allah borom jotaay bi boo ko waxee sa xel day dem ci ngëneelu weer mhm. muy Cheikh Mouhamadul Fadal. rajab nag di weer woo xam ni weer wu am solo la nga xam ne borom xam-xam nee nañ addu'a fiir rajab mustajaabun weer wi sëñ Fallou moom yonent bi sallallahu dafa waxoon ni. inna rajab shahrullahi wa chaabana shahri wa ramadana shahru ummati rajab mooy weeru yàlla man muhammad chaabaan mooy sama weer waaye weeru koor mooy sama mooy weeru sama xeet wi moo tax dafa daan wax ni moom yonent bi bu duggee ci weeru rajab allahuma barik lana fi rajabin wa balaganar chaabaan wa balagana ramadan aw kama xaala sallallahu alayhi wa sallam su ko defee nag Cheikh Maodo Fadel mi ci feeñ mhm. mooy borom ngëneel yi mhm. moom mi nga xam ni feeña daaru salaam la def feeñ ci weeru rajab waaye feeñ ci 1888 ci Ahmadou bàmba di waajuram waaye soxna Awa Bousso di waajuram bu jigéen soxna Awa Bousso moom moo ñëw ci sëñ Tuubaa ni ko dama fee bëgg am cërub góor waaye am fi cërub jigéen it nag kon waajuram woowu macha allah bàyyi seenu sëñ Fallou xam naa ni foofu laay nuyoowee sëñ Fallou lii may wax mooy dañuy faral di def bu ñuy waxtaani kilifa ñu fàttali nit ñi feeñu jamono sëñ Fallou Daaru Salaam la feeñee wax naa ko. waaw 1888 nee na yowmal jumaa weeru rajab mooy kësu rajabin kaab fen la zaay gi di juróom-ñaar muy kësu rajab gudd kësu rajab waaye nag feeñ gi mu feeñ dañ koo laajoon sëñ Fallou. ah yow foo ganee jamono. ak noo tudd. ak foo dëkk mu ne man sama lépp alxuraan moo ko wax. sëñ Modou Xaban ne ko Mbacke alxuraan la fi jiitu de waaye mu ne ko man fàllu mii sama lépp alxuraan a ko wax. est ce que. mu ne ko kon noo tudd. mu ne man sama tur alxuraan a ko wax. alxuraan moo ne innal fadla. bi yaddillahi yuuti man yasha wallahu zul fadlil azim farloo ngoog dëgg la est-ce que ñu ne ko waaw léegi kañ nga feeñ jamono mu ne sama feeñ jamono sax alxuraan wax na ko fu mu ko waxee mu ne sootu isra yi subhaana allazi asra bi abdihi leylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa ne guddi googu arxuraan wax muy laylan guddi googu ca feeñ mooy guddi Kazu Rajab que sëñ Fallou ngoog ñu ne ko waaw léegi xanaa nag fi nga feeñee jamono mooy lieu de bi xanaa sax arxuraan waxu ko mu ne alxuraan sax fi ma feeñee jamono man sëñ Fallu alxuraan wax na ko <laughs> ndax wallaahu yad'u ila daari salaam wa yahdi man yashaa ila siraatal mustaqim loolu alxuraan la ko wax daaru salaam googu alxuraan di wax nag man Fallu mii foofu laa gënee jamono ñu ne ko léegi nag xanaa yow sa domicile fi nga dëkk uh-huh. alxuraan adresse bi nga dëkk uh-huh. xanaa alxuraan waxu ko mu ne man sax fi ma dëkk sax man Fallu Mbàkke mii uh-huh. alxuraan wax na ko ñu ne ko foo ko alxuraan inna lazina amanu mhm. wa amilu saalihaati mhm. tuuba lahum wa husnu maabin est ce que <laughs> tuuba kooku falaa feeñee jama <laughs> incha allah <laughs> kon kooku mooy sëñ Aline Mbaye hmm. euh, dégg nga maam li mu tàmbalee dégg maam ci ki nga xam ne moom mooy dégg maam Alaaji Fall Mbàkke ak weeru rajab dégg maam weeru tedd weeru barkeel te wax da leen ko weer yi fukki weer ak ñaar la waaye yàlla dafay tànn ñeent dégg maam jël ñetti yi teg ko fële jën benn bi ne mooy sama weer mooy weeru rajab weeru rajab dégg maam dama laa wax ne am na benn salaat boo xam ne boo ko defee ci diggante tisbaar ak saan yàlla day wax yaa malaakati xaraqo shay'ati mboolem bàkkaar bi mu am lakk leen ko أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي يتوب إليه توبة عبدا ظالما لا يملك نفسا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا بن يون غوخاي واخ ني لاك سبكار ييب ديك مام كون سوكو ديفاي دانيو جوخ الله تشون مو نيو و الله تشون مو خامنا داي نو سي خاص دي رك با فاري دينغ خاص دي نم ندا نتنكو رك دينغ الله جي كون بسم الله أهل الفصاحة ترا بسنا مده أبري واي ولا يسدركم بال أقواب تيار لا إله إلا الله أهل الفصاحة ترا بسنا مده وليس يدركم بالأقواب تيار takraaru li annahu lil hudaa القرار شيء ما زال للخير ويكسبها ولسعادة دبا وقرار القلب يطلبه من المناقب تسويف وإسرار فاليوم وجدت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أقناه غفار بري الذي درناي غفار ليغفر جنوبي وفكك الكبليب بمن علي لتركي سروار بمن يخاطبني في سر روضته بيتان من خول من عمار شيء النار شيء لا إله إلا الله وعلى من دنيا الوار لا من ثياب إليك من ومن عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجاءت ولي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز عما غاب أوزار وجاءت وجهي إليك اليوم ملتمسا قولي لديك كمن حج ومن زار هب لي بفضلك على جبل هب لي بفضلك يا واب يا مالكي كوني لديك كمن بر وزوار هب لي بفضلك برم كزور جب هب لي بفضلك يا واب يا مالكي كوني لديك كمن بر وزوار هب لي بفضلك يا واب يا مالكي كوني لديك كمن بالروح زوار هب لي بفضلك باي شيخ عبد الكريم فرلو برم مكارم الاخلاق هب بفضلك يا واب يا مالكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاي من عيسو ما تخاربه سمز تخارب في سم يخمار اسكي لا اله الا الله تبارك الله او تبارك الله الله نيول نيول اوكي نيول كوكو الله تشون سامع موسينو وعلين باي شيخ علين باي وقتاني امنا صلى الله ما شاء الله yal yàlla gën a wéral xam-xam bi. macha allah amiin ñu ngi siyaar baax nag sama sëriñ. Mm-hmm. sëñ Cheikh Thiou Ndiaye Dabaye. Mm-hmm. di ñaan mu yàgg fi loolu te wér. miin yaa siyaar baax sama bàyyi Cheikh Dabaye Thiou. Cheikh Dabaye Thiou. di ko baax ci man lool. waay sama xarit ko jàmm. wallaay dëgg la xasaay di. wallaay maa ngi ziar ahlu murid yëpp rek. waaw wallaay ñëpp rek maa ngi lay ziar baax a baax waaw di leen ñaanal jàmm. amiin waaw di ñaanal kasu rajab gii ñu jëm yàlla nga ko fekk ci jàmm. amiin dem ci jàmm ñëw ci jàmm. amiin ak cëraa yi. jërëjëf jërëjëf ah kon dama wax ne eh, kenn ku ne dégg nga dégg maam allah cuun li mu jàng. njàng mi neex na barke Cheikh Khadim. <coughs> te téere bii mu jàng nag. moom mooy saadatu muridin fi hamday xayr mursalin mooy taxe murid yëpp nag. kon alaaji yàlla yàlla dina guddal sa fan yaa ngi mi neex na barke Cheikh Khadim mm, waaw maa la ameel mbubb nag naa la jox yére bu rafet ngir ah. jëmmi Serigne Fallou ak ndég maam raahiya bii barke Cheikh Khadim waaw dégg nga su ko defee damay dellu siwaat sin Aline Bay rek dégg nga su ko defee dégg nga mu in lu mu jukkilaat dégg maam ci alaaji Fallou dégg nga ñu daal dugaat ndax temps bi moom moo xaw a gàtt rek waaye waaw wallaay bismillah sëñ Aline jërëjëf Baye Seydou ñu ngi lay ñaanal yàgg ak wér di ko ñaanal sunu mbokkum taalibe bi mu bàyyi ah, ah, ah, waaw may cuun di ko nuyu di ko ziar di ziar murit yëpp macha allah mm. xam naa ni ko indee rek suñ fàlloo la ma jot doon avance mm. fi mu feeñee ci waajur yi ni mu feeñe mm. suñu Ibrahima Jub almachar yi daka waxoon ni ko yow Cheikh Mamadou Fadl laqad nachata min chamchin wa min xamarin fa sirtu baharan min alwaari dus daxiri yow sëñ Fàllu dangaa feeñ ci diggante weer ak jant nga nga doon nag yow sa jëmmi bopp yow sañ fàllu géejug leer goo xam ne foo ko fekk rek day duusu waaye sëñ kon fàttali nañ sëñ fàllu mm-hmm. ak feeñ jamonoom mm-hmm. su ko defee nag ñu wax léegi tuuti ci ay ay meloom mm-hmm. sëñ Mouhamadou Mamoune Niang yàlla yàlla dolli leeram muy barke bàyyi koo fan yële daa waxoon ci téere mba ni kaana Cheikh Mouhamadul Fadal saadiqul iraada sëñ fàllu ndaysaan ku dëggu la woon waaye saaduq iraada ci ñun mooy ku amuk taalibi la woon. waaye nag mu nekk muhibban li Cheikh El Khadim. doon ku bëgg sëñ Touba nga xam ne fi ne bëgg sëñ Touba ñëpp a ngi koy ndamoo. Mm-hmm. moo gën a bëgg sëñ Touba ñëpp. ndax nee daa yeggoon ci waxoon ni. Mm-hmm. suuf ko du moo en mm-hmm. li xubbil xadimi fardan araahu man Cheikh Fallou mii daal yëg naa ni. sotti rangooñ ngir sëñ Touba loolu farata la. moo tax dafa waxoon ni man damaa bëgg sëñ Touba ba dañoo wax ne nee na sëñ Fallou nit wax na ci kanamam. ponk lislaam juróom la mun na ko waxal mu wax shahadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullahi iqaami salaati itaay zakaati sawmu ramadan wa xajjil bayti sëñ Fallou ne ko wa mahabatu Cheikh al Xadim ak ak bëgg sëñ Tuubaa bëgg sëñ Tuubaa wax na dëgg de yaa ni ponk lislaam yi nee na moom boole na ci bëgg sëñ Tuubaa te loo loolu wér mu nekkoon koo xam ni ni ko ñëpp a xamee ab tab la woon ku mën a joxe sëñ Fallou nee nañ joxe na ba bis nit ñëw ne ko man de Mbàkke laa amut mu daajalal bi mu toog jox ko toog ci ruum bi sëñ bu Boussa Dieng taawam ba ñëw di siyaare si ni ko mbàkke lii nag mu ne ko lu mu doon mu ne ko lal beeg fii nga toog mu ne ko nit nit fi ñëw rek di ko laaj ngir borom barak ma jox borom barak bi ba loolu la loolu tawee foofu la yam sama lal moom naa joxale na waaye lal ba may tëdd nag moom ah. barkal <laughs> nga ne sëñ Mourou daa daw mu këram dajji lalam eh, indil ko <laughs> waaye mu nekkoon raufun bin naasi rahiman hmm. ku amoon ñeewanti ci nit ñi yërëm leen ndeysaan daa mos a gis nit ku ñu ku ñu manote mu ne mu ne na waay ñu ne ko mbàkke kii lu mu def mu ne déedéet man man man la yàlla may mënumaa gis ku oh, ku ku ñu ku ñu néewal doole na na na daal di dañ ca saase ku yërëmoon nit ñi waaye nekkoon nag ku mën a woomati ci ak njub waaye nag nekkoon ku mën a ku bari jàmm mën a kaf dëgg la bari a kaf moo tax baytamu uh, doy waar waaw ala wa inni in kasurat fululi fa laysa bi faalin illa al murua sëñ Fallou nee nañ man de dañ neen damaa bari kaf damaa bari jàmm waaye lépp lu ma def man Fallou mi mbañum rus la lépp lu ma def rek mbañum rus la su ko defee nag taalibe googu nga xam ne moom la wax li koy séeréer sëñ Fallou feeñ ci sëñ Tubaa ni mu neexee loolu ñuy wax ba leen sëñ Tubaa wooyu ca Ceyeen Jolof mook sëñ ma Roqo yi bu soog sëñ Massamba ak sëñ ma Moustapha ni leen duma bàyyi kenn ñoom ñaar taxawe ne du ma nijaay kenn sëñ Mbàkke bu sa taxa sëñ Mor Roqay bu sa taxawe ne le du ma kenn sëñ ma sëñ Masamba taxawe ne le mu leen fii li fi nekk ak taali bi rek a koy maye. ñu jaayanteeg moom jox ko seenu taali bi sëñ Fallou nag jël xalimaam waxoon way tamit siiw yooyu. waaw yaa yo cheikhu nafisul murtaja mhm. yaa fatihan maakaana qablu murtaja mhm. bi'tu bu nu watiya bil irada li kay lëkkum lekkay oxsaabi xarxil aada ba way wi jeex yow sëriñ bu tedd bi nga xamante ni bii bi nga ñëwee mboolem lu tëj woon yaa ko ubbi mhm. man fàllu mii beextu bu na watiya njural gi nga ma jur li muy neex neex doon doomi sëñ doon doomi sëñ Tuubaa dara gënu koo doon cër mhm. waaye man fàllu bis ni tey beextu bu na watiya jaay naa njural gi jënd ko octaare bi ngir waaye sëñ fa xam nga lu neex ci xasida gi bàyyi seenu xam naa du fi da ko wax ni ko soo ma nangulee li ma jaay ba noppi joxal naa la ko addiya mooy min baax de mastaraytumuha minni ahdaytuha lakum bi ghayri manni ba ma ko nangulee ba pare jëlaat naa ko defaat naa ko aj addi yow na ko nangu waaye soo ko nangoo na nga ko séddalaat mbindeef yi fi na yàlla fayal sëñ Fallou tey jii barki dem rek yaa ngi dalal waa kennel sëñ Touba waaw kennel sëñ Touba bu ñu wax kennel sëñ Touba sëñ Touba kennel sëñ Fallou moo ci jiitu dëgg la ba muy way sëñ Touba ca xasidaam nga daa waxoon ni yaa iman misla cheikhi mahlan falasta taraahu waaw dëgg la la wax tabarakallahu man fil anaami xawsun jalaahu yow mi nga xam ne da ngay wër ku mel ni sama sëriñ bi di Cheikh Ahmadou Bamba te toogal nga noppalu doo gis ku mel ni moom yaa raa iman misla cheikhi ku kuy wër ku mel ni sama sëriñ bii demal nga toog noppalu falasta taraahu doo ko gis ba àddunay tukki ku mel ni sëñ Tuubaa amul ci kaw suuf moom day jant boo xam ni moo defal lépp so ko defee nag sëñ Fallou Ngok. waaw ni mu bëggee sëñ Touba. waaye seigne fallo Ngok ku koy wax nak na nga roy ci mom waaw xamni xeyul xey rek doon seigne fallo da am jaar jaar. seigne Touba bam feñe bam jurom ñaar bi seigne bi dem ci geejgi mok seigne Modou mustapha seigne Modou seigne Modou seigne Omar Mbacke Gelongel. ñom la wo tek ci seenu lupp xali way dara ba baasin memar di len jangal ci keur seigne Soye bu tay mm-hmm. ci garabu dimbuga bañ sortu yasin sëñ bi bàyyi leen fi ànd ak ñoom Mbàkke baar yi jóge fi dem ci géej gi mu dem jàng sëñ jaam Abdourahman Lo mokkal alxuraan jëm jàng xam-xam ci magam maam Thierno ak maam Mor Jaara ba dégg nga loolu muy wax ci maam Thierno suñu bàyyi daf ñoo jàngal ba ñu ar mu yar ñu ba ñu nër. kon loolu ñëpp moom bu dee sëñ Fallou kenn du xëy xëy rek wax nga ne sëñ Fallou ku tarbiyee sëñ Tuubaa la sonnal ko ko. sëñ bi bi muy dem gànnaar mook sëñ Fallou. Thièyeen wax naa ko léegi mook sëñ Fallou njaareem danaan ñëw ci sëñ bi ni ko damaa bëgg nga liggéeyal ma ba sëñ bi mos na koo bind bataaxal ni ko yaa waxoon dangaa ñëwoon ci man di sàkku di ma liggéeyal digal naa la jumaa ji na nga fa njëkk na fa mujj moo tax nag bu ñee kazu rajab la sëñ Fallou feeñ jamono te kazu rajab ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu julli waaw loolu ngëneelu sëñ Fallou la moo tax moom la yàlla may mu ubbi jumaa ji 1963 sëñ Fallou nga yàlla yàlla fayal ñu jërëjëf kon jërëjëf euh, Aline Mbaye mm-hmm. leer na yàlla na yàlla yokk sa xam-xam bu baax a mm-hmm. baax a baax a baax mm-hmm. kon su ko defee rek alaaji seex xanaa nga jox nu dégg ki nga xam ne mooy alaaji cuun dégg nga alaaji loonu indilaat dégg cuun zalika fadlullahi yuti man yasaa dëgg la mm-hmm. ko fal ne leen ak saaw ak du xotti saatir mm. du tas yaakaar du daw ku koy laaj ku laaj mu may la nga giijal seex falu xànniyu la ana Muhammadul Muxtaaru maa la ko way yow seexu naal falu yaa moom ya fi may ma ci laab lawlaa ka seex falu lawlaa ka seex falu walwali kon bul walwaleete na ngeen way seexuna al fu dalaaw mooy fadlul azimun sharif la faarisun fadlul mbàkke bu soobee la kii mooy njiita mooy wasilaam lor na naxaare baan te dootul jeex baabadan ne yow yaay ki ñu bokk wa alu diwaane seen sima yow yaa jiite mboolem ku ni waliyu la nga daan ni taar ku ne batar na yow yaa yi xale ku dugg ci gaalu Serigne Touba Alaaji Falilo àggale la nga daan ni taar ku ne ci gaalu Serigne bi Alaaji Falilo àggale la moo sa di def di dindi kuréer mu gindi laa xamal la réew mi ma naan la waaw góor ba Abdou Karim Fallilo waay nga jëm ci gaafoor dëgg ci réew mi jumaa ji mat na dëgg la bi ñëw na dëgg la ndox mi wal naay alaaji Fall Tuubaa réew mi

góor waaye Alaaji Cuun <laughs> tubaarkalla kookooy Alaaji Cuun nag ku bëgg jànkat rek dégg maam ñëwul Alaaji Cuun a ngi mm-hmm. soo teelee Cheikh Diop Mbaye nga ne dégg maam loolu rek la man bu la teelee sëñ Fallou tamit noonu keneen ku mu la ci jàppal rek da ngay def ne loolu la dégg maam bokkul na ak yëfi boppam yi mu yoral boppam moom waaye boo déggee mu jàng rek nga xam ne ku dégg la dégg maam na ko yàlla lafal cat mm-hmm. suñu set la dégg ku baax mm-hmm. dégg noonu lay àndee ñoom taaw mbay ak ñoom ñëpp kenn ku ci ne taaw mbay mu nga gàmbi xam naa ne moom tamit xëy yàlla dina ko indi ci jàmm ak noo ngi wax waajal dégg maam màggalu kasu rajab nanu nenu kenn ku ne borom oto yi nanu wàññi paas yi borom oto yi nanu fexe dégg maam ñiy dawal nañu dawal ndànk yàlla nu yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam nu àgg dégg maam am yoonu màggal dil seeg jàmm comme ni ñu ko defee woon ci yoonu poroxaan bi yàlla na ko yàlla defee noonu ci màggalu Kazu Rajab bi su ko defee dégg maam damay dellu siwaat rek xanaa di sant dégg maam mbooleem ñi nga xam ne rek dégg maam ah ànd nañu dégg nga ca poroxaan ñu ñu àndoon poroxaan ñëpp dégg nga daayira Nihmatul Rabbil Alamin ak daayira sopp maam jaara dégg nga àndoon nañu ko ak alli mbay ànd ko dégg maam ki nga xam ne moom mooy jëwrin mu nekk nekkaloon ñu fi ñun ñëpp muy Baye Saliou Ndiaye waaye mu Ndiaye Mbaye Aliou dégg nga ak ki nga xam ne sëñ Massamba ñoom ñëpp wax naa leen waaye sant nañu dégg waa daayira soxna maam euh, waa daayira maam jaara dégg nga soxna Ndey Juuf dégg nga ak mboolem soxna yëpp dégg nga dañuy tënk kàddu gi rek dégg nga su ko defee dañu jox àllin rek ndax daanaka waxtu yi dégg nga maanaam jeex na ba pare suñu àllin mhm. loolu indi laat rek dégg balaa balaa ñoo ñaan waaw waaw bàyyi seenu sëñ Fallou xanaa sëñ Alaaji daa dugg ci waaw ay jëfam dëgg la muy jëf yoo xam ni asamaan la rek amul may ma ma xool déedéet bi ci njëkk li mu defal sëñ Touba wax naa léegi mébétam mu rëy mhm. aji màkka sëñ Fallou ko def 1928. dëgg la ak ñoom àndaloon yoon wi. dëgg la. sanc ndindi 1914. dëgg la ci ndigalu Sëriñ Touba. ci. daaraam yooyu mu doon def. Mhm. loola danaa ci ñëw. Mhm. waaye mu ñëw defal sëñ Touba it lu rëy. mooy leen jumaa ji keroog ba mu ba mu ba mu yeggee. Mhm. ñu war ko ubbi. juin 7 juin 1963. àdduna sépp teew. waaw mu ne kenn rek laay ndokkeel man Fallou mii mooy Cheikh Ahmadou ñëpp toog mu ne kenn rek laay ndokkeel dem ba ci barabu sëñ Tuubaa bi ni ko kamaaxat kunta te amalu yaa xadima mhm. bihi anit fi daari naima fa kun fii ni'matin abadan muqima mu'afan murtada cheikh al xadima daani maa lay ndokkeel ci seen li nga xam ne yaa ko ma bétoon mu mat sëkk mu sas ay daara nag bàyyi seenu daari sëñ Fàllu bari na lool waaye daara yi su ma la leen dindi ni la mbépp madina buuba xaayaan mhm. Touba Merina naylul maram mhm. aliya Touba sorang Touba Bogo ak yeneen ak yeneen ak yeneen li tax may wax daara yi mooy da koo defoon mu doon daara yi liggéey mu ne woon lépp lu ma ci am su naree mooy jumaay sëñ Touba jég liggéeyal sëñ Touba bi na mel ni xorom sëñ Fallou ngoog waaye yàlla na yàlla fayal ñu ko dëgg la ci des it mu doon ku yéeme koo xamante ni bii li ma wax léegi mooy daawul gis nit ku am jafe-jafe moo tax gis nga loolu ñuy nettali waa ji jóge Ndakaaru ñëw ni ko Mbàkke dama doon xeex ak tubaab rey ko dañ alaman fan fanweeri junni ma yaakar la mu dugg ci biir jox fan fanweeri junni mag ñi ne ko mbàkke ki la dalay nax mu ne waaw xam naa ni ko royub tubaab du toog fii waaye sëñ tubaab ji mu yaakar ba ñu fii dama tas ak mbokk waaw waaw ko roy tubaab du toog fii gis nga kooku ñu lay nettali koo xam ni wu jot mu ñëw ne ko sama soxna daa daa daa am daa am daa am gone loolu lépp day dugg ci yërmaane Cheikh Mamadou Fadal waaye nag bàyyi seen sëñ Fàllu ñun murid yëpp ak taalibe yi war roy ci moom lu am solo mooy sëñ Tuubaa rek a am. daa waxoon ne man fàllu mii du ma doom ju bëgg a doon baayam du ma it taalib bu bëgg a seex. duma dara na sëñ Tuubaa am rek ma dugg ci biiram. loolu nag jàpp naa ne bu ko bu doxee rek. mu daal di am solo lool. su ko defee nag indi woon naa fukki juróom. fukk ak juróom yoo xam ni moom la sëñ fàllu réalisé ci ci xel xilaafaam. waaw incha allah leen waa jiw ba jéegul juxu fa. waaw incha allah dana ñëw. bokk ca loola. bi mu ñëwee. Mhm. Ram Ragal. Mhm. moo ko fi jëlee 1945. waaw bi muy toog xilaafa 45 ab guerre amoon guerre mondiale. waaw waaye jumaay sëñ Tuubaa ji ci moom la mate muy ñaareel ba. nga gis jumaay Tuubaa it boo demee da nga fa fekk majlisu xam-xam fu ñuy mhm. jàng xam-xam. mel ni daara ji sëñ Falloo ko defoon ci ayam. waaw bi ci des Touba. Ndakaaru Njaay gi grande mosquée de Dakar. keroog bañ tegee premier xeeru sëñ Fallu fekke ko. wax nañu jumaay ndakaaru ba at mu jot sëñ Fallou million la ci million la ci doon joxe ba jumaay ba jumaay ndakaaru ji yegg tabax na Mbàkke jumaa ju rafet ñu ne jumaay Mamor Jaara lañ koy wax mu ne jumaa ji da koo joxe àllarba ndax Mamor Jaara dafa bokk ci leen daan jàngal màggalu Tuubaa mhm. sëñ Fallou ko woote Tuubaa 1946 45 46 ba ñaan 49 ba 47 mhm. loolu lépp moo ko defal sëñ Tuubaa moo tax lii ngay woote ci màggalam gi ne oto yi def ndànk mhm. keroog ba mu wootee màggaluk sëñ tubaa gi tuubaa daa dem ci borom raay yii fexe ba ñu yombal taalibe yi ñu mën a ñëw tuubaa mu signé ñi yor avion yi nañ fexe ba yoon yi neex ma ba léegi su màggal jubee ñuy wàññi paas yi bitim réew loolu jam loolu liggéey Cheikh Mamadou Fadal la yàlla na yàlla fayal ñu ko xam naa yooyu benn la ci yooya la def ci biir tuubaa yoon yeeg saxaar geeg gaar bu ndaw ak lu te yëpp jëfi sëñ Fallu la yàlla na yàlla fayal ñu ko allah bàyyi seen Euh, ni ma koy waxee rek sëriñ Fàllu Mbàkke su ma déggee ma wax borom oto yi dégg nga sëñ Fàll daa toog ba mu yàgg am ku ñëw ci moom indi ko oto mobile daan ne ko Mbàkke kii de tubaab bee ko defar oto mobile la tudd mu ne ko kii tuddu waay waaye tuddul oto mobile waaye kii wattul mobile la tudd kii wattul mobile la tudd kii ci mujjug jamono dana faat bakkan yu bari waaye ku ci bëgg mucc dégg nga boo koy wommat da nga naan rëj dëju daal ni nikk ni jàkk bu ne tàcc nga ne tekk bu ne yàng nga ne yoll ndaw ndànk dal ndànk kon dama ne euh, loolu doy na dégg maam ci li nga xam ne dégg maam moom mooy code de la route bi suñu faal jox nu ko kon nañ ci jàpp dégg nga su ko defee àllaaji dégg nga loolu ñu indilaat dégg maam ñu ñu mën a tëj mbir mi waxtu wi jot na daanaka ci àllaaji bisimilah la yantaxi li jandina seytaana بس من ومن له وامترار وضلال كمنا قلت لهم مجاربا إذا أننا لله ذو اجعل لنا يا جهنم من قد اتخذ وليا سوى الذي والي الامور والمنى الشيطان ذي الطغيان والاضلال مبعد بفضل الله نحوانا شيخ مرجعي دابا عن أحمد سري توبا سري خزيخين البكي أحمد برم دابايك سالمة عن نفس مصبانا لا ينتحي لجنبنا سيطانا بل زندقا ومن له الغفران ولم نزل في أرغد عيسى بمن أنا أذا لدي فتن وكلعنا نزل راجيا من ربنا سعادة لازمة إلى الجنان خير صلاة تخدر سيطانا على المنير والصلاة من ربنا خير صلاة تخدر سيطانا على المنير والصلاة من ربنا jërëjëf kon tàggool tàggoo bu dul tàggoo rek alaaji mhm, doyaluñu de waaw barke Cheikh Khadim mhm, doyaluñu tàggool tàggoo mhm. bu dul tàggoo rek waaw dëgg la ah, waaw bu yoon jeexul wax du jeex dëgg la te sunu maam nga pourtant yaa ngi bëgg ñëw ci wallaay wallaay wallaay waaw waaye xam naa liggéey benn xaw kii rek wallaay dëgg la ah, waaw noo siyaar baax nag tey ñaanal waa kër Cheikh mu Ndiaye Daabay yëpp sëriñ Cheikh Thiou Ndiaye sëriñ Cheikh Fall Ndiaye moom sëñ Fallou njaay dëgg la ak sëriñ Cheikh moom sëñ Basirou Ndiaye. waaw ñu ngi leen di ñaanal baax yàlla na seen yoon àgg. amiin yaa amiin barke xasaay di. amiin noonu la ñuy ñaanalee suñu maam Ousseynou Sy mii yàlla yàggal ko fi loolu te wéral ko ndax bu yàggee rek ñu ñu jariñu ndax ndax jàpp na ni moom lu mu yor rek. dëgg la wala baas bu taxaw rek. taaw mbay moo ko war a yëngu. wallaay dëgg la te ñun ñii ñoo taaw yi ànd. wallaay waaw yal na yàlla defal la jàmm. amiin yaa bi may la sutura ak xaalis bu bëree bëree bëri. miin bu bokk nañu xasaay sëñ Aliou Mbaye ñu ngi lay siyaar baax. waxtaan wi macha allah neex na lool. kon bu ko defee rek dañuy tàggoo foofu. waaw joxe sa numéro téléphone. waaw 77. waaw 168. 48. Mm-hmm. waaw 70. 77. 100 168. waaw 48. 70. waa kay Alaaji Cuun Raaya. waa kay Alaaji Cuun Raaya képp koo soxla rek dégg maam baa ngi noonu loo bëgg mu jàngal ko dina la ko jàngal kon su ko defee rek ñu jox dégg maam sëñ Aline mhm. mu tàggoo moom it tàggoo bu dul tàggoo. dëgg la sëñ Aline bisimilah. macha allah jërëjëf ak li nga ñuy dool rek ci tàggoo bi. waaw waaw bàyyi seen la ñuy tàggoo rek. waaw ma yow di la ñaanal. waaw est-ce que gën laa yàggal. amiin gën a wér. ndax kilifa gu baax nga gu yaato di ñaan gaa yi gaa doo kilifa ak mbët yow loolu yàlla defaloo ko <laughs> yow sa doom yeeg ñii soog a ñëpp jànkat yi ñëpp rek yaa ngi leen di jàppale lii ngay def nii fi ne dañu déglu waaw ci yéen lañ ko daan jàng rek ba mën koo wax tey nga toog di ñu déglu wax yàlla na yàlla def xéewal dañoo toll ci jamonoy ñaan nag mm-hmm. ñu ñaanal sunu sëriñ waaw sëriñ Moustapha am sëriñ Abdou Lahad sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou Lahad da koy liggéeyloo ca kër sëriñ Abdou Lahad bâtiment bu xam ne tubaarkàlla mm-hmm. yal na yàlla def mu jébbale caabi yi balaa yàgg ma ñaan ñaanal sëriñ Fallou nag ñaanal ko réew mi sëriñ Fallou daa waxoon allahuma waaw in kaana rizqan fi samaay fa anzilhu yow yàlla bu fekkente ne wërsëg ci kaw asamaan sa la nekk waaye wàcceel ñu ko waay wa in kaana fil ardi fa axrijuhu bu fekkente ci suuf la nekk waaye waay waay yàlla génneel ñu ko wa in kaana baidan fa xarribhu su fekkee ne wërsëg daa sori lool waaye waay yàlla jegeel ñu ko waay wa in kaana xariban fa yassirhu bu dee nag daa jege te jafe waaye waay yàlla yàlla nga yombalool wërsëg woowu waay wa in kaana xalilan fa kasirhu bu dee wërsëg daa néew nag waaye waaye yàlla baril suñu wërsëg waay wayen kaana kasiran fa baarik lii su fekkee ne daa bari te barkeelul yàlla yàlla nga ñu barkeelu wërsëg bi waaye yàlla wala an saaka du la fàtte mukk abadan wa jubnil maasi wa daar walhamdulilahi rabbil alamin kon nag ñaanu sëñ Fallou googu dëgg la moom lañ jël def ah, ko muy suñu tàggoo yàlla na yàlla dolli wërsëgu ñëpp bi jaaxee Cheikh Mouhamadul Fadal ñaanal sëñ Saliou Touré sunu borom liggéey bi di liggéey nag dégg yàlla ñëpp def seen seen kii. waaw waaw yàlla lépp jàppandi. incha allah jërëjëf sëñ Aline Baye incha allah. Mhm. Euh, tubaarkàlla suñu xol sedd na. Mhm. Cheikh Aline. Euh, yal yàlla yokk sa wér ak sa kàttan ak sa xam-xam. ñaan sëñ si Alioune Touré yal na fi yàgg lool te wér. amiin nga sant nañ bu baax xam-xam bi leer na. dégg nga allah cuun. Mhm. noo lay sant noo lay gërëm. suñu sët nga ku baax nga ci njàng mi tubaarkàlla. yàlla may na la dégg nga fasaatu lisaan dégg nga ma xaar ci ruuf yooyu yëpp boole moom waaw la soo jàngee rek dégg maam moom taaw léeg bu fi nekk moom laay àndal dégg te fu ma ko wooyee rek mu daal di ñëw dégg nga kon moom dañ koy ñaanal bàyyam di sama xarit loolu ñu koy ñaanal yàlla na yàlla gën a guddal fanam waaye loolu mu doon wax dégg maam bind sëñ Moor Njaay daa la mm-hmm. sëñ Moor Njaay daa bàyyi bu baax ma mm-hmm. dégg nga moom la doon kii nit ku nekk da am wasi la mm-hmm. te fi nga nekk dégg nga maam koy jàpp ba mu dëgër waaw kon su ko defee ñoo ngi sant bu baax a baax tey ñaanal jëmm ji nga xam ne mooy Pape Doumbouya ndeysaan Pape Doumbouya mi moom télé bi di suñu doom nuy jëwrinam noo koy ñaanal ci barke Cheikhul Khadim dégg nga fu mu bëgg a yegg yàlla ko yàlla àggale lu koy njortam na ko yàlla sàmm aar ko ni yàlla sàmmee asamaan ba ma xewul dégg nga képp ku ko yéene jàmm yàlla na ko bokk ku ko safaan dégg nga yàlla del ci moom dégg nga ndax moom kat xool bu rafet la am te dimbalee rek lay def dégg seetul dégg mu am ndax kii da koo bëgg walla da koo bañ te du tas yaakaar nit ku baax a ngoog yor ci si jikkoy sëñ Fallou hmm. moom nee na du tas yaakaaru kenn waaw billaahi baayam ci boppam wax na ko dégg nga ñu koy ñaan góor gi Seydou Doumbouya yàlla na fi yàgg te wér noonu la ñu ñaane soxna Fanta Diop moom tam mi wéy jëram mu jigéen dégg nga ak soxna jàngoo di ay tàntaam yàlla yàggal leen fi wéral leen kon su ko defee rek ñun ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp dégg maa di wax ne Euh, ñi ñuy seetaan suñuy mbokki taalibe suñuy xarit suñuy soppe ñii di ay tiijaan ñii di xaadir ñii di laayeen ñii di salsal ñii di dabbaax di wahabit ñépp dañuy dajeeg man di ma wax te kenn ku ne suma sañoon dinaa tudd sa tur dégg am sant la gërëm la waaye incha allah ñaanal leen suñu tee tee bi rek bu accès bu soobee yàlla booba téléphone dana am dañ ko mën a ubbi dañ mën a wax ak yéen mm-hmm. dégg nga boobaa dana gën a yaatu ñaanal leen nu rek rajo bi nag yàlla indi na ko dégg nga incha allah léegi ñu mën a tàmbali ay émission dénga ci rajo bi dégg nga ah, boo xam ne bi dégg nga prestige la tudd des maam ah 95 point 5 la mooy fréquence bi mhm. incha allah di wax ne nag noo ngi sant dégg maam waa États-Unis d'Amérique bu baax a baax Ibrahima Dramé sunu doom dégg maam ak mboolem daayira yi fa nekk yëpp ñuy sant itamit ki nga xam ne moom moo Cheikh Awa Balla Mbacke si dégg ca France Fat si dégg ca France aw Keita ca France noonu la ñu sante dégg maam soxna Buri dégg nga maam ma nekk dégg nga maam ci États-Unis d'Amérique soxna Buri saar dégg ñaan yàlla may leen wér ak kattan ñoom ñëpp dégg nga yàlla yokk seen wërsëg noonu la ñu sante dégg nga maam soxna si nga xam ne moom moo tudd maam jaara jamanka itamit dégg nga nu ngi koy sant di ko gërëm waaye noo ngi sant dégg maam waa daayira di mata rabbal alamina daayira sopp maam jaara ak mbooleem daayira yi fi nekk ak ñi nga xam ñoo doon kennal dégg maam Serigne Touba ca rond point bi dégg maam ñu ànd kook dégg maam bolle dégg nga ak Aline Soare mhm. waa ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di ay jàmbaari fàkk tëdd dégg nga su ko defee itamit ñuy sant ñëpp di xam ne euh, wax dëgg yàlla président de la république tamit moo ngi ñëw fii dégg maam ah euh, tey jii la ñu wax ne ci euh, ci àllarba ji lay ñëw àllarba lay ñëw dégg maam ci loolu tamit ñu xam ne euh, kooku nga ne waa Thiès la rek yàlla nu yàlla defal jàmm dégg na di sant ñëpp di bëgg di ñaan xew-xew yi nar a ñëw yëpp yal na ci yàlla def jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ñun ñoo bokk lépp te émission bi jàmm du doy laa ko tuddee yàlla na yàlla dool jàmm ñuy sant waa Touba ak waa Mbàkke fu ay mën a ne de nga di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeur ngeen def wakay xana allah ji bismillahi rrahmani rrahim yaqulu abdullah wa huwa amadu qadim man tumadu muhammadu yaqulu abdullah بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من تماد محمد يقول عبد الله وهو عمد